voilà amagul dikk ma fay jaaree xanaa di nuyuwaat bu baax a baax euh, Gilbert Cyprien Préda Ndeye Seye maa ngi lay jaajëfal Soxna Diarra euh, Pastef nee na dictature totale Sénégal jëm billaahi suñu artuwul di euh, dinañ àtte Soxna Diarra Pastef moo daal di bind li ni mel Gilbert ne on devait se révolter depuis depuis longtemps di xaar yeneen réaction ci 77 810 90. Ibrahima ci loo nekk. waaw ma maa ngi lay ziar bu baax. di la delloo ziar. di la àjjuma ji di baalu ñëpp ak si àjjuma ji. naka waa Italie. waaw ñu sant yàlla bu baax nañ sant baax a baax a baax. ñaa ci bismillah ci waxtaan wi. waaw ma ñëw rek damaa man damaa am lu may laaj benn question gaa yi moom ban ban soow leen nàmp man loolu laay laaj gaa yi dugg ñii. ban. ban soow leen nàmp dañoo nàmp biir bi biberon wala soow mbaam. damaa xam ni nit bu duggee. yow li nga war a gën a war a ñaawlu mooy ñaar nit ñi nga xam dañoo wax dañoo dañoo wax faatu ñu faatu ci ci ci kii bi xanaa lu mu dee ci ci ci ci kaar euh, bi xanaa lu mu dee da nga masawu ñooñu sax seeni i mbokk mais yow nga dugg naan di wax ay wax yu xam tekkul dara di wax ay wax Ousmane Sonko bakkan bu ku dee di ko tekk rek koy dund ñu rey leen rey ñaari doomi jaam ñoom la bokk ndey dokk bokk bàyyi mm-hmm. amul kenn ku dugg masawu mm-hmm. mais ñii bu ay nit la man dinañ ma jaaxal. léegi am na am na am na ko envoyé message <laughs> nan ma euh, war nañ mhm. sew itam euh, njaboot gi nga xamante ne moom moo loru ndax euh, benn. benn waay bi nga xamante ne moom dafa yore scooter am doon dawal la ñu ne moo daal di mhm. faatu te bokk na ci la la ko faat xëy na lu lëndëm diggante pul diggante waa gendarmerie ak moom booy boobu doon dawal moto ba nga xam ne jamono ji vraiment ñàkk na bakkanam ci circonstances yu yu douteuses. xam nga dee dee dee day bokk te bee day bokk te wuute bii mhm. bokkul bii ñëpp dañoo génn daan li amul. Mhm. xam nga bee génnagul génn gaa yi génnagul le populaire bii dañoo génn populaire nu gis ni. bi gaa mhm. bi ñëw ñëpp daan ni kenn deewul nii dañuy fenn wax dëgg. tey génn leen preuve leen ñaa dee na bokk ndeeg bàyyi. mais xanaa nit boo nampee soom xaj sax. bu sa mbokkum jullit faatoo war ngaa mën a génn sa masaw ni nga xam tey noo faatu noo faatu léegi léegi ci li nga wax am na communiqué bi nga xamante ne yoon nañ ko depuis démb ndax euh, ñaar ñu faatu kenn ki mu ngi tudd Fatoumata Bintu Diallo am ñaar fukki at ak benn nekk doomu ki nga ne moo di Amadou euh, Amadou Diallo ak Sira baax ñoom ñoo jur euh, Fatoumata Bintu Diallo ak Umu Kaltum Diallo am juróom-ñaari at moom itam nee nañ doomu aadama ay Aïssata Ba ak euh, ak euh, ki nga xamante ni moo di Amadou Diallo ñoom ñoo ko jur ñoom ñaar donc Fatoumata Bintou Diallo ak Oumou Kaltoum Diallo ñoo ñàkk seen bakkan ci euh, bus boobu noonu nga xamante ne moom moo lakkoon ca ca yaraax. waaw loolu laa nit ki boo duggee bu dee jullit ngay wax de yow da nga ne jullit nga. Hmm. boo duggee nga masawu ñooñu baalu ñu leen sax mu rafet. Hmm. soo paree nga wax li nga bëgg a wax. Hmm. parce Sénégal lu métti méttee lu métti ñu ñëpp noo ko bakkan dafa fort bu nit bu ba ba ci nit faatoo yéen ñëpp ñoom ñëpp nañoo dugg démb ku nekk naan du dëgg du dëgg du dëgg ministre bi waxul dëgg naan wa dëgg tey preuve génn na nga masaw ñi ñi ñi faatule ah mais nga dugg di wax ay wax yi yu xam ne ci kasaw kasaw Ousmane Sonko li ma doon wax de moom laa xam rek parti parti mooy wan de parti bu xam parti bu war a dem la wala parti bu war a amaate la parce que boo gisee ñi di dugg nga xam ne di bokk ci Pastef di wax wax ju bon wax wax yi ay Diallo Diallo Diallo Diallo Diallo ci ci yenn hmm. ci yenn termes yi rek vraiment on t'aime bien mais waaw kon maa ngi déglu waaw maa ngi déglu kon kon nan di rafetal parce que boo gisee hmm. parti Pastef tey li tax mu mu ñëw hmm. kon lii moo ko war parce yow ñu dugg ñëpp gisee li ñu wax amul kenn ku ci wax wax ju li ñu wax mooy kilifa diine la xas di xas euh, diine ji di xas tarixa yi di xas ñoom loolu la amul dugg du wax wax ju Mhm. mais nit ki loo bon bon ba nit ki boo ànd ak nit waxu nekkul ci dëgg mais da nangu yow sa waa ji nekkul ci dëgg Ousmane Sonko ñu koy toppale moom moo ko def moom moo dem ci Adji Sarr génn fi woote fi gerte gerte wax fi yeneen bàyyi nit dee si moom moo ni Sénégal yi génne kaa leen dem kon loolu ku ko waxee ku dee yow la tey booy di génn tey moom moo bind passe di ko daane booy génn leen mais kon képp ku si yàqule moom nga war a porter plainte <laughs> mais nga bëgg yow nekk Sénégalais nit ki def erreur nga ne kii li mu def dañ koo xeex dañ koo xuloo mais kan mooy topp ko xam nekkul dara parce li mu def yëpp moom lépp erreur moom la parce que amul def mooy nekk di topp topp kilifa leen def leen ay morom di leen diir mbag xoolal tey fu dee ku dugg kilifa diine léegi ñoom lay kilifa diine yi nee def lépp année deux mille vingt et un ak deux mille vingt trois de yow am Sénégal yow nit jël gagné ko de yow noonu dañ am réew mel yow réew amul armée amul dara nit mën naa génne am réew si noonu ñu naa kilifa diir moo waxoon nangam ban bàyyi ko mhm. Ousmane Sonko fii la ko Serigne kii bi woo Laayeen bi woo Serigne Laayeen bi koy yet li wax tontu ñëpp dégg di ko tontu mu koy tontu ñëpp naa ko pro li nga wax mooy dëgg mhm. loolu ban Serigne ban kilifa dina mooy gis lu mel noonu parce que nan parce moom mission bi mu jël mooy na dem ba mujj bu kenn gëmati benn kilifa diina bu kenn mm-hmm. gëmati dara dara wax seen baay nu woo seen papa yi nu jox leen kilifa mais ñoom ñëpp kenn waxul woon maa da nga ne bëggul ma kee kilifa di gëmal sa bopp boo bëgg di nekk murit dama nga gëm li nga gëm nga bokk li nga noppi ci nit ki loo bokkul maandu si man mi tey jii jullit laa gis dégg may may wax ab chrétien wax ma ciy wax dara non non parce que li ma bokkul dama ciy maandu mais yow nee nga doo murit mhm. mais yow doo murit pare bëgg yow di xas murit di ki di seen kilifa di xas li non mais ban Sénégal lañ nekk mais kuy waxal yàlla xam ne Ousmane Sonko moo nekku si parce que tey ñaata doomu aadama moo lépp luñ koy toppe moo ko def lan lañ ko topp di ko day mmh. ñëw jël ay oto jàmbur di ko taal tey ana oto jàmbur yi ñu taal yàq ko ah ngir à cause de Ousmane Sonko ndax lan pour njiiteem réew mais njiiteem réew la Ousmane Sonko ak ku mën doon njiiteem réew laata réew mu avance. Mmh. bu njëkk bi ñuy wax Macky saal bi ñu fi jëlee mag Abdoulaye Wade loolu la def ku ne tëb di dal di fecc di dal naan réew mi dina saaj tey tey nu ngi tey di xas di xas di xas Macky Sall tey bu ëllëg bu keneen ñëwee noonu lañ koy gis nga àdduna bi nit ki da ngay gëm yàlla gëm sa bopp xam ne lépp lu am yàlla la nan nan nangu ndogal yi yàlla mmh. mais mënumaa d'accord ñun ñëpp taaw nga yow gëm nga yàlla pare yow nangoo li yàlla teg mhm. mais buñ nu nu loolu lañ ko ñamoon sa doom tey ji doo nekk di wax dan ah, ah, wax ah. dëgg mais buñ jigéen ay kilifa diine nangam kilifa aaday nangam buñ ne wax ngeen wax si politique politique politique ngeen wax si politique mooy nañ si génne yenn kilifa di si génne kilifa aaday. d'accord man maa ngi yéen a bañ ma wax ju ñaaw mais li wax moo gën a bon parce ñoom noo téye Sénégal kuy waxal yàlla xam noo téye Sénégal ñoom di wax ñëpp seen bàyyi ku ci faatu Tuubaa lañ lay yóbbu mbaa da yóbbu la Tiwaawan yóbbu la Njaasaan moo tax du leen suul seen dëkk yi ak yeneen ak nan wax na dëgg gis na réew mi tey lu mu métti métti politique politique la mais nañ si Mhm. mais dëgg tamit moo njëkk te mooy mujj nañ génne yenn te ni waxante dëgg te ni waxante dëgg te bàyyi nii ni def Sénégal gis ngeen lu mu yàgg-yàgg kilifa dina xas ñoo yor réew mi mhm. bu mais amul du taxaw si yor rajo naan diw nangam naaw loolu mu am xaa ah, mhm. kan la fi yaayam di yedd fii ñun ñëpp ku yaayam di yedd dem taxaw si rajo di wax kon léegi loolu moo preuve rek bu gën a gaaw kan la fi yaayam di yedd wala yaa di waxtaanee wala sa yaay di waxtaan ci biir néeg di génn ci mbedd mi gis say say ñeneen di di dégg la mu la amul kon nit ñi nañ delloo seen xel te ni yow te nekk nit ma ñëwaat beneen bi foofu dama doon benn kii bu ndaw rek mooy Macky Sall bi nga xam moom la war moom la war a fal. Mhm. Macky Sall pare na bu yàgg day kii de xam nga politique moom xaw a politique nga xaw a pëndal gars yi xool ba am testament. ma mhm. xam nga Macky Sall ku toll moom xam na ki koy remplacer dootul a jàpp ko Macky mais boo xoolee xam ne Macky pare na bu yàgg xam na ki muy tànn jël na bu yàgg il faut mu kii nii pour bël fee gars yi gars yi coow ñu xool mu testé yëpp ay sondage yi muy def la léegi léegi léegi boobu léegi sondage côté boobu nee jamono ji nag APR ak Benno li ñu am ci candidat ëpp na fukk ak benn dem ba bañ daje Macky daf leen wax naan di yéen xool leen seen biir kan ngeen di jiital ndax jamono ji Macky Sall dafa réer ci ki nga xam ne moom moom moom moom la war a tànn ndax su nekkee dem ba xamatul non non réerul yow xaa am politique Macky Sall si yow Macky Sall si yem naa ko tey c'est benn geste bu jeu bu ñuy rek. Mhm. pour xam nga des fois nit ki booy def dara il faut nga wutal pënc. Mhm. maa xam ne booy fal nii da nga ko war a pënc te loolu ku nekk politicien war nga xam li ma wax. Mhm. ma il faut nga wutal benn diw xam boo léegi bu ñu nit ñi loolu loolu loolu loolu kii la ay points yu ni gagné la. mais boo ñëwee comme mu nooy nga tànn nii. mais tey doo na loo xam dëgg day yomb day yomb day yomb rek de. <laughs> politique la nekk politique il faut mu ànd ak cas cas mais waxuñu politique boo xam da ngay ñëw di taal oto jàmbur di taal këri jàmbur di rey ay doomi jàmbur. <laughs> politique nii la da ngay di ay cas cas mën ngaa xumbal riiral mais bul yàq fi jàmbur bul tooñ. Mm-hmm. mais politique boo xam tey saaga loolu lu toll ni président de la tous les Sénégal yi nga xam Macky Sall. c'est le mm-hmm. meilleur président d'Afrique ba mu def ñëpp soxla mm-hmm. mais xoolal tey ay Sénégal tey noo ci wax noo koy jël di ko wax du ñaaw yow loolu tey loi wax yaa xam képp ku saaga président prison war dem. ñi ñoom ñi may dégg ñëpp de xamuñu lu waat mais xam nga tey na ma yàlla tey na ma te li a métti man ñi nga xam ne noo war a am xel wala am xam a yées noo gën a nax man seen xel yi noo gën a nax man li ma jaaxal nekk Sénégal di war sax dama wax mais man ñu nekk Europe génn am nekk Amérique wala nekk France man ñooñu laaj xamul man ban soow la nàmp loolu laay laaj d'accord merci Diallo parce que damaa yaakaar tukki même boo fa amul dara na fa xam-xam mais ñi ñoo tukki gën a yées gën a dof vraiment maa <laughs> leen ziar baax di def seen liggéey quoi merci Eh, merci bon week-end à toi di la jaajëfal bu baax a baax euh, Sénégal rek euh, maa koy.